ñi ngi yëkkati ni yob lislaam di ko jëme ci bépp jëmm fu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ak biitu góor ak jigéen mag ak ndaw ak auditeurs yeeg auditrices yépp ñeel rajo Jafala FM di leen wax kenn ku ne ci turam ak santam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci nuyoo boobu nag boroom kër gi boroom rajo bi di suñu waajur di suñu sëriñ di suñu kilifa muy cheikh ahmed xalifa ñas di ñaan yàlla may ko wér ak fan ak képp ku ne amiin tey ñi ngi war a dalee ci aayaab juróom ñaar ci suuratul baqara gannaaw ba yàlla tuddee noonoog yahud ñi ca jullit ña ak ñàkk jëfandikoo ndigal yàlla sax rekk ci lànk ak diingat ak bañ ak bëril bërig bu ñuy bëril dàggiwanteeg werante ñeexal seen yenant ya ak ñàkk wommatu nangoo topp seen digal ya gannaaw ba yàlla tudd yooyu yépp ci ay yi paase yàlla ngi cay tofal nag di tudd lenn ci seen bon bon ya ak seen bàkkaar yu rëy yi nga xam ne dañ duñ jóg mukkuti ko def yu garaaw ya ñuy def ci ay bàkkaar ak bon bon ya ñuy def ci seeni jëf ya ak seeni wax ya bokk na ca bàkkaar yu rëy yañ toggoo def ko ci lu mel ni soppi kàddu yàlla ak woote gi ñuy woote ci kaw suuf di gëmloo ña leen topp na ñoom ñooy soppee yàlla yi ci kaw suuf ak itam wax ne ñoom ak lu mën a xew ak luñ mën a def safara duñ fa dugg mukk wala bu mënta ñàkk itam ay fen yu néew lañu fay def génnaat ndax na ñoom seen baay ya ak seen maam ya ak seen mbokk ya ay yenant lañ luñ mën a def rek ñoom ñoo leen cay génne te yooyu yëpp ay kàcc la yoo xam ne ay fen la yoo xam ne seeni baay ya ñu ngi ko doon ci seeni baay seeni baay ya doonee ko ci seeni maam dara wérut ca dara amut ca loolu la yàlla di tafal di tafal nag ci ay yi paase gannaaw ba ñu xamalee comme ni ma ko waxee yàlla nga koy njëkkee nag tàmbalee ko ci euh, indi aayay ta'yiis pour xamal jullit ñi ne leen li ngeen di yaakaar ci seen xel yi ak li ngeen di def defle te moo ne yahud yi danañ gëm tuug dugg ci lislaam loolu moom bi boo ngeen génn ci seen xel du ma sa xam ñii duñ dugg ci lislaam duñ tuub duñ jébbalu su ko defee ña ko doon foog ak di ko yaakaar ak di ko bëgg di ko xemam ca jullit ña seen xel génn ca ñu xam ne kat ndeke ñii moom jarut kenn di leen yaakaaral njekk mbaa ak mbaax mbaa lu baax su ko defee nag aaya bii di ñëw muy afa tatmaun yàlla nga ko wàcce ci waa lansaar lansaar xam nga leen mooy ñu nekkoon madinatul munawwar mooy ñu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam fekk si woon ca jat gàddaay ga gannaaw jigéen mu màkka mooy ña ko teraloon teeru ko gëm ko teg ca yàlla tagg leen ñu ñooy wàllan saar wàllan saar yi nag dañoo nekkoon dañoo signé woon accord ñoom ak yahudi madina ay xulafaa u lañu woon lil yahud ànd ak loolu ñoog yahud ay dëkkandoor lañu woon ay dëkkandoor lañu woon dëkkandoor ga dem ba mujj soppeeku mbokk ndax ak nàmpaale xew na ci xew na seen diggante ak ñoom yahud yi comme ni bi nekk woon baaxab arab ku dañuy jël seen doom yi di ko ñuy nàmpi feneen arab dafa bokkoon ci aadaam doomam da koy jël dugal ko ci ñetti néeg ci pour mu nàmp fa jëlee fa jikko yooya askan woo xam ne dañ leen a naw ci xel boromi xel lañ arab daan na jël doomam dugal ko ci askan woowa mu nàmp fa ndax mu donn fa xel mooma ndax xel ci la nit ñi di rawante ku la ëpp xel gën laa raw ñaareel ba danañ xool askan woo xam ne boromi fit lañ boroom njàmbaar lañ ah, ñu dugal fa seen doom mu nàmp fa ndax mu doon noo fa njàmbaar nga xam ne bu ëllëgee xare bu mu dem rek bokk ca njàmbaare bokk ca daan ya ca ñay daan danañ xool askan woo xam ne boroom ak fasaxa lañ maanaam dañoo fasaxa ci làmmiñ ci wax ah ñu dugal fa seen doom mu nàmp fa euh, ndax mu mën faa doon loola ñett yi yëpp nag ay jikko yuñ sant la yu baax la ndax nit bu amee fit làmmiñam fasaa mu mën a wax booleeg borom doon borom xel wax dëgg yàlla kii pour mu tekki am revenu ci àdduna euh, pour mu tekk ci àdduna day yomb fu mu dem dafay mën a ne ñaareel bi itam ah dara du ko jomb ci àdduna arab yi dañ daan def lii moo tax ñu daan nàmpal ñu daan nàmpal seen doom yi ci feneen ci dañuy giir léegi nag nàmpalante googa ñu daan defante nag far na xew seen diggante ak yahud ya xanaa kon gannaaw dëkkaale mbokk dikk na mbokk googu ak dëkkaale googu nag tax jullit ña jullit ña di ma waa lansaar di am yaakaar lool ak ak boole ko mébét lool ak xemem lool ci ne ñii kat danañ bugg ci lislaam ndax mbokkoo gi ak dëkkoo gi te na ñëw ay yahut lañ yàlla nag indi aaya bii nag xamal waa lansaar te mooy jullit yooya naan leen bu leen mos a njort li ngeen di njort yu boo ngeen teg ko ci suuf li ngeen di foofu yu boo ngeen teg ko ci suuf yahud yi duñ mos a dugg ci lislaam duñ mos a tuub moo tax yàlla ne afatatmaun àndax moos da ngeen xemem waa lansaar la doon waxal te mooy jullit ña da ngeen di yaakaar an yu uminu ba ñu dëggal ak gëm la kum ñeel leen foog ngeen a moos da ngeen ada da ngeen di yaakaar yéen jullit ñi ne yahud yi dinañ dugg danañ jébbalu dugg ci diine du mas a am tayis la àndax ah, dangeen di yaakaar lii waqad kaana mbir mam nekk na fariqun ab kuréel minhum ci ñoom yahud yi te mooy seen boroomu xam-xam ya yasmauna di dégg ka yasmauna danañu dégg kalaamallahi kàddug yàlla xam nañ ko ni ko yàlla waxee déggee nañ ko ni ko yàlla waxee summa yuharrifunahu topp soppi nañu ko sopp danañu soppi ko min baadi ma aqaluhu ci gannaaw ba nga xamee nag xelu nañ ko xam ko waxum te ñoom wa huwa hum te mbir mam ñoom yaalamuna way xam lañ wala yaalamuna danañu xam ne li ñuy def nii dañ koo def ci ak tey waaye defuñ ko ci réer defuñ ko ci njuum te defuñ ko ci fàtte xanaa looloo gën a bon waaw ko am fital def lii dégg am jël dégg waxi yàlla muy ab téere bu mu wàcce ci ab yenantam nga am fitu jël ba jël téere ba soppi maanaama mbaa soppi baat ya gannaaw ba nga ko jàngee xam la ca nekk lépp boole xam ne lii ngay def te mooy soppi ko bàkkaar gën a ko rëy te réer taxut nga def ko ñàkk xam taxut nga def ko fàtte taxut nga def ko waaye yaa ko def ci kaw yaa ko tey ndax kii nii dana mës a dugg ci diine kon nag yéen jullit ñi bu ngeen jarut ngeen di xemem ak di bëgg ko yaakaar ne seen dëkkaale yi soppeeku ay mbokk tey yahut danañ dugg ci diine lislaam te iis la ci jullit ñi su ko defee ñu génn ci seen xel ñu naagu ca xàdd ca xam ne li comme ñii ñoo def lii ñuy wax dëgg yàlla duñu wëlbati ko duñu wëlbati ko mukk duñ dugg ci diine lislaam moo tax yàlla ne afatatmauna àndax moos da ngeen di xemem da ngeen bëgg ñoom yéen jullit ñi an yuminu ba ñu dëggal ak gëm ñoom yahuud yi ngeen dëkkaaleel lakum ñeexe leen dugg ci dina lislaam déedéet du am de ndax li koy firnde ja mooy waxat kaana te mbir mam nekk na fariqun ab kuréel minhum di bokk ci ñoom yahuud ñi te bokk ci seen yi borom xam-xam ya yasmauna danañu dégg kalaamallaahi kàddu yàlla mu wàcce comme ni ko yàlla wàccee ñu dégg ko comme ni ko yàlla wàccee su ma yuharrifunahu topp danañu soppi ko benn nag ñu soppi maanaama wa illaa ñu soppi baat ya ñaar yëpp xew na baa baadi ma ci gannaaw ba nga xamee ne nag aqaluhu xam nañ ko jàng nañ ko xam ko dégg ko di ko yàlla waxe waxum te mbir mam ñoom a danañu xam piir lañuy def dañ koo def ci kaw maa tey waaye defuñ ko ci kaw njuumte defuñ ko ci kaw fàtte lii gën a garaaw nag looloo garaaw yàlla tudd na fi ay baat fariq wa qad kaana fariqun fariq ji ñuy tudd léegi mooy firi kuréel fariq dafa bokk ci euh, ismu euh, maanaam dafa bokk ci nga xam ne ay ismu jamu lañ dafa bokk ci nga xam ne ay ismu jamu lañ jàngoon nañ ko ca rabbil alamin ca aalam jooja ñu doon wax waxoon naa ne aalam ismu jamoo la ismu jamoo nag ñu ko waxee mooy lisim joo xam ne mënoo ko tëgg mufrat xam nga arab day def mufrat def ne def jamoo bii nag mënoo ko tëgg mufrat mënoo mënoo ko tëgg mufrat ni nga ko gisee ne maanaam tur la woo xam ne buñ ko waxee rek mbooloo rek nga cey mën a déggee du doon kenn du doon ñaar mais mbooloo lay doon yooyu nag ay ismu jamoo lañ mënoo cee tëgg mukk benn mu tegtale benn su ko defee nag aalam waxoon nañ ko foofa fariqun mi nag ci lismu yooyu la bokk xawmu ca la rëxatu ca la ak alam jañ paase woon kon ñeenti baata ngi noonu yoo xam ne ak yeneen yiñ tuddul ay isma ay asma u jam lañ laa waxida fii maanaam kenn mënu ci tëgg mufrad noonu rek nga koy bàyyi ñoom yasmauna danañu dégg dana ñu dégg kalaamallahi kàddug yàlla suma yu yuxarrifunahu toppi danañu soppi ko nag taxriif nag soppi kàddug yàlla ci ñaari mbir lay amee benn ñu soppi taawil ga ñu soppee ko ci taawil taawil boo xam ne fasit la maanaam firee ko nam leen arrangé mais firee wuñ ko na ko yàlla nammee ak lam ca nam ak nam ko waxee loolu day am loolu bu amee tamit xeet la ci soppi kàddug yàlla yàlla ñu ci yàlla musal te loolu bëri na fi mu ne xool aaya yi rek di ko firee ni la arrangé sa yoon ne wut ca ñi ko yàlla waxee loolu bëri na loolu mooy mooy mooy mooy tawil ko tawil boo xam ne fasid la muy benn xaaj ci taxriif damay soppi kàddug yàlla ñaareel ba mooy nga soppi jëmmi baat bi indi beneen baat boo xam ne sa baatu bopp lay doon jël baat bi yàlla utilise sànni fale indi sa baatu bopp teg fi ñaari façon yii mooy taxriif bi nga xam ne moom la yàlla bañ sib ko ba bay xasee ko yahud ñe nam yu xarrifuuna kalima an ma yu xarrifuuna summa yu xarrifuunahu min baadi ma aqaluhum yaalamuun kon soppi kàddug yàlla ci ñaari ma ci ñaari xaaj yi la ko ñaari xaaj yi yépp nag yahud yi def nañ ko soppi nañ taawil ya firee ni leen neexee ak ni leen arrangé muy benn ñaareel ba itam soppi nañ ko ci soppi euh, taawil euh, nañ ko ci soppi baat ya indi seen baati bopp teg fa comme nañ soppee melokaanu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ci tawreet ngir bañ dégg nga euh, gaay yi seen mbokk yahud ya xam ne kiñ doon wax kii la te kon ñoom ñëpp ñu bàbbeeku topp ko te kon ñoom ñu folleeku kenn dootu leen topp tax nag ñu soppi baat ya indi seen baati bopp fu ñu waxoon ne ku rafet la ñu ne ku ñaaw la fu ñu waxoon ne ku nàngam la ñu indi safaan ba lu ñu yàlla wax rek ñu indi safaan ba kon ñaari façon yi mooy taxriif ñaari xaaj yaa ngi noonu ñaari xaaj xaaji taxriif yi yépp nag xew na ci téere yi nga xam ne wàcc na jóge ci asamaan tawraat moo ci gën a siiw ak linjiil moo tax nga dégg alquran ne yuxarrifuuna alkalima an mawaadiihi dañuy soppi baat ya yëkkati ko yëkkati lañ fa tëraloon tëral fa la tëral fa seen tëral seen tëralin bopp amma bu fekkee na taxrif la nag boo xam ne dafa aju ci tawil boo xam ne baatil la moo xam ne faasida da ngaa xool ni mu la neexee rek nga arrangé ko loolu moom xew na ci téere yu bari xew na ba xataa ci alquran ji sax xew na ci alquran taxrif am na ci taxrif boo xam ne bi maana tawil baatil la te mooy euh, ñenn ñu réer ñoo koy def ak ñenn ñi nga xamee ne dañuy def lu leen neex moo xam ñu xam wala ñu ñàkk xam wala ñu topp wala ñu def ma def ak maa tey te mooy jël al aaye alquran yi di ko taawil nam leen arrangé ak nam leen neexee waaye duñ ca xool la ca yàlla wax ak nam ca nam ak nam ca nam ko bëggee kon loolu taxriif la xeet la ci taxriif xew na ci alquran waaye nag taxriif bi nga xam ne nag mooy beneen xaaj ba te mooy soppi baat ba toxal baat bi yàlla wax indi sa baatu bopp teg ci loolu moom yàlla wattu na ci alquran du mës a xew ci alquran yàlla wattu na ci alquran du mës a xew ci alquran alquran na ko baat na baat ya wàccee woon ca lawhul mahfuz wàcc ci sayyiduna muhammad baat yooya ba tey jii ba mooy téere bi ngay jàng benn baat soppeekuwu ca loolu yàlla wat na ci alquran moo tax nga dégg alquran ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun wattu googu am na ca kon taxriif li ma bëgg a wax rek mooy taxriif soppi kàddug yàlla ci ñaari xaaj lay amee première mooy fas mooy taawil ko taawil boo xam ne baatil la fasit te mooy fire nam la arrangé firee nam la neexee ak na ko jekkoo rek te yoon newut ca na ko yàlla waxee Ah, dégg nga ñaareel ba mooy firi mooy mooy taxrif soppi baat ba indi sa baatu bopp teg loolu nag xew na ci téere yu asamaan yi yëpp téere yi wàccee ci asamaan yëpp xew na ca ci ñaari xaaji taxrif yooya comme nam xewee ci tawreet tay tawee xewee ko ci linjiil dégg nga bu dee ci alquran nag denn ba xew na ca te mooy tawil boo xam ne baatil la loolu xew na ci alquran benn minal jugee minal jahalati aw il mulahada waaye nag bu fekkee nag rotal baat ba indi beneen baat remplacé ko loolu moom duma sa a xew ci alquran moo tax mu ne na nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun kon yàlla ngi ŋàññi ak di bon feeñal bonuk yahud yi ak seen ak seen ak def def yu bon ya ak bàkkaar yu rëy yi ñuy toggoo ci soppi kàddu yàlla moo tax mu ne su ma yu xarrifuunahu toppi soppi danañu soppi ko bi mbaadi ma ci gannaaw ba nga xamee ne aqaluhu xam nañu ko ñu ngi ko jëlee ci àqalu ji firi xel àq mu nam mu ci xam maanaam fahimuhu dëgg dégg nañ ko gannaaw bañ ko jàngee ba xam ko booleeg dégg maanaama dégg gannaaw ba ñu defee loolu gannaaw ba loolu amee nag ci lañ ko soog ak soppi xanaa koy lii maa la waaye du njuum te du fàtte du réer looloo ci gën a garaaw moo tax yàlla tofal ca waxum ñoom yaalam waxum te mbir mam ñoom yaalamuna danañu xam li ñuy def lan la li ñuy def nii dañ koo def ci kaw maa tay def la waaye du def ak ñàkk xam du defak ak ñàkk du defak fàtte mbaa réer mbaa leen baatab àqal àqulu xel lay firi waaye firiwutoon xel dañ koo indi ci xel àqulu cosaanal baat ba ñu ngi ko jëlee ci maanaam euh, jéng booy alaa bu ñu yee buñ ja buñ buñ buñ jëlaan giléem takk ñeent takk tànk ya ba dootul mën a bouger fi mu taxaw loolu moo tudd àqlu maanaam jéng maanaam ci gàttal mooy jéng bu dee fas la nga ne jatank jatank ya mooy tax du mën a màmm du mën a am liberté dugg fu ko neex mbaa dem fu ko neex loolu mooy àqal cosaanul baat bi loolu lay firi mooy jéng wala tënk wala façon yooya arab bi nag giléem lañ ko daan def comme ñun amuñ giléem nag fas lañ am moo tax ma ñëw ci fas mu te mooy mooy jatank comme loolu ñuy def fas nga xam ne du mën a daw te ndànk lay dox te du doxee du dem fu ko neex su ko defee nag ñu jël baata bu àqlu boobu doon firi jéng wala jatank ci waxin tuddee ko xel ngir lan nekke nit ki li ko wutaleeg bàyyi ma mooy xel xelam moo ko war a jéng comme nañ jéngee giléem ga wala nañ jatankee fas wa ba du dugg ci loo xam ne ay mbuusóor la wala lu koy taxa ayibal wala lu koy taxa manki comme nañ ko waxee woon ci gannaaw dégg nga xel toujours moom moo lay guider ca loola ndax bàyyi mi amul xel moom lu muy mën a dugg yoonam ne wut ca amul xel mu koy jéng di ko tere ba du def nii wala lii war naa ko def war waruma koo def nit nag xel moo koy tànnal xelam moo koy seggal xelam moo koy jéng ba du dugg ci yenn yi loolu tax ñu tuddee baatu àqulu àqulu li lay xamal ne baatab àqulu firi wutoon xel gisoo arab yéena maam xalifa daan na woyantoon naan xajiiju wa naaqati maaqulatun yaa rabbi yaa mawlaaya xalli oqaalaha ndeysaan bëgguma guddal ndax waxtu wi waaye li ma bëggoon rek nga xam ko mooy na baatab xel xel tudd xëy rek tudd xel xel lu tax ñu tuddee ko dafa am fu mu jógee cosaanal baat bi luxa bi mooy loola léegi nag xel lañ ko xel ñu tuddee ko xel léegi ngir namm ci rek xel dafa war a di tënk borom moo tax ñu bëgg nag booy julli sa xel mi nga tënk ko ci julli gi comme nañ tënkee giléem gi ci barab bi ba du mën a dem fu ko neex di dugg ci toolu jàmbur tënkal sa xel mi ndax boo ko tënkul rek xel dafay tinkee dugg fu neex te kon loolu dalay xañ leeru julli loolu itam dalay xañ yoolab julli jàngun nga ko léegi nag xel mi da koy tënk ci julli gi ndax léegi xel boo ko tënkul dafay sob day dem fu ne day mel ni fas boobu nga xam ne dafa rëcc rek wala jur googu nga xam ne kenn takkut ko kenn yeewut ko day dugg fu ne mën naa dem ba dugg ci toolu jàmbur yàq fa xel it noonu lay def moo tax olof ne xel dana dana yem fu ko dana dugg fu ko dana dem fu ko borom yebalut léegi nag yaa koy tënk looloo tax ñu tuddee xel xel loolu nag bokk ci bind bi waaye leeral rek la moo tax yàlla nag ne min baadi ma aqaluuhu gannaaw ba ñu xaq gannaaw ba nga xamee ne xelu nañ ko te mooy xam nañ ko waxum tamit mam ñoom yàlla moo danañu xam kon seen jëf ji ñu jëf ci soppi kàddu yàlla dañ koo def ci kaw maa tey ndax xam nañ lañ xam jàng ko na ko yàlla waxee dégg ko na ko yàlla waxee gannaaw loolu yëpp nag ñu soppi ko benn ñu jël taawil ba fay def ko taawil boo xam ne baatil la te mooy firee ko nam leen arrangé wa illaa ñu dindi baat ya soppi ko indi seen baat baati bopp ñaar yëpp nag xew na ci tawreet ak linjiil ñoom ñooñu nag nga xam ne boroomi xam-xam lañ mooy yahud yi olamaul yahud la ndax yasmauna kalaamallah min ak min baadi ma aqaluhu jàng nañ ko xam nañ ko kon boroom xam-xam lañ muy benn ñooñu nag wa iza laqu ndéem dajee nañ na ak gaa ñi nga xam ne amanu gëm nañ yàlla te muy saxaabaay muhammad ya déglul ñoom ay boromi xam-xam lañ ci ci ci jàng nañ tawreet doon ay yahud teg ca ànd ak loolu ay naafeq lañ moo tax xaalu ña ngay wax wala xaalu wax nañ ne aman naa ñun day dëggal nañu gëm ñu gëm nañ de buñ dajee jullit ñi nag ci mbedd madina ya liñ leen di wax mooy ñun de gëm nañ li ngeen gëm aman naa gëm nañ li ngeen gëm gëm nañ ne yéen yéen ci dëgg te muhammad mii mooy mooy yonent bi ñu yàlla doon bégal ci seen tiire aman naa ji loolu la loolu la loolu la nu ñoom gëmuñ sax waaye dañoo bëgg a wax ne gëm nañ ne yéen a ne ci dëgg maanaam xam nañ ne yéen a ne ci dëgg ndax muhammad mii ngeen topp ko ngeen topp mooy kañ xamoon te jàng ko ci suñ tiire lii lañ wax de ñoom ulamaa ul yahud ña nga xam ne ñoo soppi tawreet moo tax yàlla ne wa iza laqu ndem daje nañ alladina ak gaañ a nga xam ne amanu gëm nañ te mooy saxaaba ya xaalu dana xaalu wax nañ ne aman naa dëggal nañ ne yéena ne ci dëgg gëm nañ gëm nañ lii de yéena ne ci dëgg te muhammad mi mooy kañ bégle woon ci suñ téere ya lii di ko gën a doy waar kon ku mel nii nga yaakaar ne dana tuub kii du mësa tuub ndax kii li muy def yëpp ci maa tay la ko teg yàlla nag ne wa xalaat xalaa ndem wéet na mooy wa iza xalaw ila shayatin bi jàngoon ca gannaaw xalaa ji xala xalaw jooje moo tekki xalaa fii tey mooy wa isa xalaa ndéem wéet na baadahum lenn ci ñoom ilaa baadin jëm ci ñenn léegi nag baadahum ilaa baadin mooy ñoomi neen ñoomi neen bu ñu wéetee toog ba bokk benn jataay te mooy yahuuti kese ya xaalu wax nañ ñoom ña waxutoon ne atu xaddisuunahum ña ngay ña ngay yedd ak di xas ak euh, dégg nga ña nga xam ne ñoo tasee woon démb ak saxaaba yi naa leen aman naa ba di leen nettali lenn ci melokaanu muhammad yi teñ jàngoon ko ci tawreet looloo leen naqari moo tax xaaloo wax nañ ne atu xaddisuunahum andax da ngeen leen di waxtaane da ngeen leen di xamal bi maa ca la nga xam ne fataxa xamal na ko laahu yàlla aleykum ci yéen ndax da leen di wax nag leen yàlla xamal ci tawreet naan leen Muhammad mii moom lañ jàng ci saw ci tawreet ba nangam ak nangam ak nangam ay yéen lu tax ngeen dem ci jullit ña di leen wax lii di leen xamal lii di leen yedd ca loola ndax loolu da leen a naqadi lu tax nag mooy li xaa li yu xaajukum ngir dana ñu danañu wante bii ak ca loola ngeen leen xamal an rabbikum fa seen boroom su ëllëgee nag lu mën a xew ñu ye ñu ñu ñu dàggiwante ak yéen yey leen afala taaqiluun ana seen xel ya afala taaqiluun ana lu leen tere xelu ba xam ne su ngeen leen xamalee dëgg jiñ xam bu ëllëgee buñ dàggiwante ak ñoom danañ ñu yey te xam ne ñun ñii ñoo nekk ci ak ndëngte te te ñoo ko tey kon su boobaa nag yeddaa ngi mooy war ci ñun kon lu tax ngeen ana seen xel yi lu tax ngeen di def lii kon affaire bi da leen di naqari moo tax nag lépp fépp bu yàlla tuddoon ci melokaanu Muhammad si tawret dañ koo soppi ñenn ña nag di ay naafeq bu ñu tasee jullit ña dañ leen di dañ leen di dañuy xaw a senn di wax lenn la naan nii kat nangam ak nangam xaalu aman naa comme ni ma ko waxee léegi yàlla nag yàllaa ngi delloo ñooña seen wax ya ñee di xaste seen morom yi yahud yee di xas seen morom yi yahud ya doon wax aman naa ngir bañ ku leen yeey ci dëgg ji nga xamee dañ koo nëbb te muy senn li dem ci saxaaba ya yàllaa ngi tontu nag ngir delloo ñooña ne awala yaalamuun kanaa dañoo xamut ñoom ñay wax ne atu haddisuunahum bi ma fatahallahu aleykum ñooñu laay wax ne awala yaalamuun kanaa dañoo xamut ne anna allaha naka yàlla dana mu xam maa yusiru la danañu nëbb ko ci seen xol ya wa maa ak ànd ak xam la nga xam ne yooli noonu danañu feeñal ko kanaa ñoom xamuñ na yàlla dara numput ko dara nëbbuhut ko ba tax ñuy petoo ñoom i neen wéet ñoom i neen toog ci seen ruq ñoom i neen di yeddante di wax loo xam ne di di yedd ña wax dëgg ndax ñu continuer ci seen fen yeeg seen nëbb yi ndax bul fàtte na ne su ma yaxarifoon woo passé na te mooy soppi nañ kaamit soppi nañ tiira bu yàgg wa minhum gannaaw ba gannaaw ba yàlla nag yeddee boole xaste seen boromi xam-xam yële nga xam ne jàng nañ tawreet ni ko yàlla wax wàccee ci ñu jàngee ko noona boole xam la ci yàlla wax yépp gannaaw loolu yëpp ñu soppi ko nag ñu soppi ko ngir ci cig maatay ci cig maatay yàlla wax ba mu waxee ca ñooñu ba pare nag ma ngi cay tofal aaya yoo xam ne mooy ñeleen topp seen taalibe yeleen topp nga xam ne xamuñ dara ca tawreet jànguñ dara ca tawet fa sax ñoom mënuñ jàng mënuñ bind yàlla nga koy tofal ñooña benn lañ rek wa minhum kii kii dafa réer kii dañ koo réeral ku njëkk ka dafa réer dégg nga boole di réeralaate ku mujj kii may bëgg a wax moom dañ koo réeral kon ki ak ki ñu réeral daanaka ñoom ñëpp benn la ñoom ñëpp ñooy bokk daanu safara wa minhum am na ci ñoom yahud ñi ñoo xam ne ummi yu na ay ummi yu lañ xamuñ dara ummi yu mooy ay ummi yu mooy koo xam ne képp kuñ ko wax te ku dul yonent yàlla muhammad rek xas nañ la jar na xeex ba ba jant bi soo ummi yu mooy koo xam ne xamul dara làkk wam nàmpee ca weeru ndeyam rek fa la xam-xamam yem jeex na gannaaw loola xamu ca teg benn xam-xam teguwu ca ummi yu yonent yàlla muhammad rek lañ koy wax muy tagg wu rëy ca moom ndax jàngut dégg waaye eh, dégg eh, lépp luy xam-xam tey ci àdduna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy man baaba mooy markazul fuhumi wal maani sayidina muhammad wax alquran ne nabiyil ummi yi gis nga nabiyil ummi yi yonent yàlla muhammad rek lañ koy wax muy tagg ci moom waaye kuñ ko wax ku dul yonent xas wantu rëy moo tax kuñ ko wax ku dul yonent jar na xeex ba jant bi sox dégg nga wa minhum am na ci ñoom ñoo ci ñoom yahud ña ummi yu na ñoo xam ne ay seen ay ummi lañ mooy kojug seeni ndey lañ maanaam xam-xam bañ xamee ne moom lañ nàmp ci seen weenu ndey te mooy làkk wa dong dong fale seen xam-xam yem ummi yi nag moom lay firi ne laa yaalamuuna alkitaab laa yaalamuna duñu xam alkitaaba laa yaalamuna xab duñu xam ñoom alkitaaba ak mbind mënuñoo bind mu dem ndeyjoor mënuñoo bind mu dem càmmooy ànd ak loola mënuñoo liir dara ki ki kii kay moom daanaka kenn xamut lan la mooy li mooy li tubaab alphabet alphabet la mooy koo xam ne mënut bind mënut liir ñii nag ñoom ñoo topp ñële ci yahud ya jàng tawret soppi ko ci kaw maa tey topp seen bànneex def lu leen neex ñii ñoo topp ñele kii réeral ko yomb na ñoom ñu tudd ummi yi xamuñu ca tawreet ca téere ba illa illa ya ndere ay fen amaaniya nag fen nga koy fiire tey ndax téere ba muy tawreet la fa ëpp ñu nekk fa dañ ko dañoo soppi baat ya indi fa yeneen baat yoo xam ne seen ba euh, yahud jàngoon tawreet ñoom ñoo ko def kon loolu yëpp ay fen la te mooy ne fen ya mooy lan mooy na ñun yahut ak lu mën a xew duñ dem safara bu fekkee dugg safara mënta ñàkk itam ay fan yu néew lañ fa am juróom-ñaari fan dong lañ fay am loolu amaan nii yu la ay fen la ñaareel ba itam ñu ne ñoom ñooy soppee yàlla ci kaw suuf ndax yenent yi ci ñoom la xewee anbiyaaw yeeg ab mursalin yëpp ci ñoom la xewee loolu dëgg la waaye nag pekk taxut nag ñoom ñuy ahbaabullahi fil ard loola noonu mooy amaaniye loolu rek lañ xam ci tawreet ummi yii may wax loolu rek lañ xam ci tawreet waaye am ànd lu ànd te yi ay fen ak kàcc rek la dara amu ci a gën a leer ci aaya yi ci kanam moo tax wa am na ci ñoom yahud ña ñoo xam ne ummiyuuna ay ummiyu lañ xamuñu dara laa yaalamuuna xamuñu alkitaaba ak mbind xamuñu dara ci tawreet illaa amaaniya ndare ndare ndare ay fen amaa nee na jamu umniya jii firi mébét la baat bi cosaan la mébét la daan firi mébét mooy li ngay bëgg ci li nga xam ne yaa ngi koy mébét di ko bëgg ci sa xel te xamoo te xamagoo nooy def ba am ko su ko defee xam nga li ngay mébét amagoo ko te xamoo nooy def ba am ko loola loo amagul la daanaka mébét daanaka ay kàcc daanaka ay kii la rek maanaam mm, daanaka soriwut ak fen ndax li ngay mébét yaa ngi toog daan ay man su ma amoon benn million waaye wala su ma amoon benn cinquante mille cinquante mille léegi anamu léegi mel ni mébét ga nax na la day fen kon léegi moo tax nag baat bi arab del ko boyal ko di ci namu fen di ko di ko ci moo tax amaana yi nga firee noona wa in hum déet ñoom illaa yazunnoon dara ñu ñu way njort te itamit loola ñu jotas xamaskas néew ci tawreet muy ay mébéte ki fen xamuñ ko xam gu wér gu leen wóor ay njortu rekk la ndax seen bàyyee leen ko wax seen bàyyee seen maam leen ko wax teguñ ko xam amuñ ci benn dëgër laay boo xam ne bu wér la kon lii dara wóoru ci moo tax ñàkk jàng wóorul foo waylun yàlla nag ne fa waylun tatuk mbugal baata waylu nag ñaari baat arab da koy wax waylun ak wayxun lam nga boo ko soppee def ko xaa muy wayxun waylun nag mooy bu fekkoon ne maanaam tëkku ak kupp amaatul beneen baat bu gën a garaaw waylu xam nga léeg-léeg nga dégg olof ne su ma amoon beneen baat bu gën a bu gën a budul nàngam kon ma utiliser boobaa waylu nag boo arab xasee wax amatul beneen baat bu gën a garaaw bu nekk ci gannaaw waylu fa la mën a yem tëkku ak coupé moo tax arab du ko utiliser lu dul ci loo xam ne safaan la lu mel ni achar wal azab bu fekkee way xula nag comme boroom xam-xam yi nuxaat yi li ñu wax ku mel ni sibawa yi nga xam ne daanaka mooy mooy xalifa général euh, borom xam-xamu naxu yi ci waxin moom moo koy teqale diggante waylun ak wayxun dégg nga xam nga léeg nga dégg arab yi ne waylak wala nga ne mu ne la woy xàkk su ko defee nag baatam woylu duñ ko wax lu dul ku xas daanu ci kàmbal alkane ko kii dugg na ci daanu ci mbir ba pare ñu ne ko kon woylu la dina na ñoom daanu nañ ci li leen di wax woylun ba pare bu fekkee woy xàkk nag na mooy koo xam ne daanoo gu ca mais jege na caa daano mooy tax ñu naan siba woy hi ne waylun liman waqaa fi lhalaka wa li man ashrafa alayha kon loolu laa bëggoon a leer loolu laa bëggoon mu leer waylun am na way xaq am na ñaari baat yi doog sore wuñ mais waylun moo gën a garaaw waaye nag baatam waylu mu amul beneen baat bu nekk ci gannaawam boo xam ne moo gën a garaaw waylun bu ko xasee arab xasee wax dafa la yem dégg nga ci charr ak azab rek lañ koy utiliser moo tax ñii nag dañoo yoyoo mbugal daanu ci daano dañoo yoyoo mbugal ak lépp luy ay moo tax yàlla utilise fa waylun yàlla yàlla nag ne fa waylun tatug mbugal wala fa waylun toskare lillazina ñeexal na ña nga xam ne yaktubuna danañu bind te mooy ya ulama ul yahud bind alkitaaba téere ba bi aydihim ak seeni loxo jumla bu xaw a doy la yaktubuna alkitaab bind alkitaaba téere ba déedéet du alkitaaba nekkutut tawreet ne moo tax alkitaab bi ni mu koy firee mooy Euh, mooy baat ya nga xam ne euh, nu ñu koy waxeeti mooy baat ya nga xam ne ñoom ñoo ngi koy soppi fa waylun tatuk mbugal lillazina ñeel na ña nga xam ne yaktubuna danañu bind bi ay aydihim ci seen loxoy bopp ya yàlla day xam ne ñoom bind ñoo ko jonjoog seen ñoo ko loxoy bopp ngir jañ def def léegi moo ne du majaas du dara euh, yaktubuna danañu bind alkitaaba lañ wax alkitaaba seen baati bopp ya ñu jiñ na tawreet la loolu mooy téere bi fi mu ne mais nekkatu tawreet li lay xamal ne alkitaaba du tawreet mooy su ma yaqulun haadaa min indillaahi yàlla lu dëgg dégg wax ji moo tax mu ne maanaam tos ko rek mbugal ñeexal na ñi nga xam ne ñi ngay bindaat ñi ngay bindaat téere ba di ca indi loo xam ne bokku ca di ca dindi loo xam ne moo ca bokkoon kon yaktubuna bu leen fee bi ko bindaat de ndax téere ba bindu nañ ko boo pare ñoom ñu ngi koy bindaat nag ci soppi ko indi seen baati bopp loolu laa bëgg maanaam pour nga xam ko dëgg-dëgg waaye nekkul na dañuy bënd téere bi fa waylun tatug mbugal taskareeg mbugal lillazina ñeel na ña nga xam ne dana ñu bind alkitaaba téere ba lim na mu ci téere ba nag mooy seen xelaatu bopp ya ak seen baati bopp ñu soppi diñ ci téere ña ngay bindaat téere ba bi ay dihim ak seeni loxo su ma yaquluuna topp danañu wax ne haada lii lii ñi bindaat min andillaahi mooy téere ba waxoo fa yàlla ba wàcc ci Muusa lii de lañ wax fekk ñoom ñoo ko soppi soppi gën wax naa la ci ñaari façon lay amee benn ñi taawil ko taawil ñu yàq firi ma firee ko na leen arrangé wa illaa ñu soppi baat ya indi seen baati bopp teg fa seen baat yi seen baati bopp yañ indi teg fa nag loolu mooy yaktubunal kitaaba bi ay seen baati bopp yañ indi teg fa loolu mooy yaktubuna kitaaba bi aydihim su ma yàq bañ ko bindee ba pare nag muy téere bu mat sëkk soppi nañ tawreet lépp lii soppi nañ maanaama lii soppi nañ baat ya bañ ko bindee ba pare nag sama yaquluuna topp ñu wax nag topp danañu wax ñeexal ña leen topp te mooy ummi ya nga xam ne xamuñu dara dara dara mënuñoo jàng mënuñoo bind ne haada lii min indillahi mooy téere ba baxoo fa yàlla kii mooy tawret tawret bu biir baa ngi mii la tax nag ñu def loola du dara lu may pour mën a dund ci àdduna ci kaw ci kaw nit ñi rek li ngir nañu jëndee bihi ca loola samanan xal samanan ak njëg xalila bu du aji néew àdduna dong dañ ko def rek fi sabilu xattaami dunia ci sa ci yo ngir ngir sàkku mbiram alalu àdduna moo tax mu ne li ngir ngir danañu jëndee bihi ca loola samanan njëg xalila bu du aji néew ndëngate gii ñi def day ak jubadi gii ñi def te boo def ko ci kaw maa tey ndax defuñ ko ci njuumte defuñ ko ci fàtte defuñ ko ci riir waaye dañoo xam ba pare moo tax alquran waxoon ne wahum yaalamuun min baadi ma aqaluhu wahum yaalamuun lii ñuy def du dara waralu ko lu may bëgg àdduna ak bëgg nax nit ñi dajale jël seeni halal yàllaa ngi waxaat ne mu ngi baamtuwaat ne foo waylun tatug mbugal tos ko rek tos ko rek mbugal lahum ñaal na leen ñoom ñu def loola mi màcca leen ni la nga xam ne katabat bind na ko ay diihim seen loxo ya lañu bind ci seen loxo ya tos ko rek mbugal ñeexal na leen ci bu bëri bëri bëri wa waylun tatu mbugal geneen lahum ñeel na leen mi maa yekk si buna ci la ñu fàggu te mooy alal ja nga xam ne dañ ko cay jëlee di ko ci nger nger nger yañ leen ca jox ba tax ñu def ko ak buñ bindee ba pare itam téere ya alal jañ leen ca jaay mu mel dañ koo fàggu yàlla na ne toskare ñi nga na leen ca la ñu def toskare ñi na leen ca la ñu bind toskare ñi nga na leen ca lañ cay amee te la cay juddoo ci wàllu alal tax ñu def ko kon dara baaxu ca kon ñoom loolu la ñu def li tax nag mu ne yaktubuuna alkitaab bi ay aydihim tudd baatu ayd muy firi loxo mu jam o ko daf ko tudd fii li defi tawahumil majaaz pour jañ def def leeg majaaz bi nga yaakaar ne maanaam euh, bind bi seen euh, maanaam bindam bindam majaaz la mais loolu la yàlla di loolu la yàlla di défense ak itam ak firndeel ak itam dëggal ak feddali këne bind bi ñoom ci seen bopp ñoo ko jonjoo ci seen loxoy bopp ya comme li arab di wax naan katabtuhu bi yamini katabtuhu dog doyoon naa maa ko bind waaye mu indi bi xamal ko ngir xam ne ne maa ko bindal sama bopp arab day wax ne sami'tuhu bi uzni dégg naa ko ci samay nopp dégg naa rek doyoon na ndax noppay dégg waaye bi usni ji dafa ñuy xamal ne moom ci boppam moo ko déggal ko kenn déggalewu ko ko maanaam nettaliwuñ ko ko moo ko fekkee déggal ko boppam waaye bu yàlla day bi ay diihim dafay xam ne ñoom ci seen jëmmi bopp ya ñoo ko bindal ci seen loxol bopp ya kon su ko defee su boobaa yow mi ñuy waxal nga xam ne ndeka lii du maanaam bindug loxo ya namuñ ca majaaz waaye xaqiqa la loolu la yàlla bëgg leeral nag moo tax mu indi suma bi moo tax bi ay diihim yàlla ne fa waylun tatuk mbugal toskareeg mbugal lillazina ñeel na ña nga xam ne borom xam lillazina ñeel na borom xam-xami yahud ya nga xam ne yaktubuna danañu bind alkitaaba téere ba bi aydihim ak ci bi aydihim ci seen loxo loxoy bopp ya te mooy lañ soppi summa yaquluun topp danañu wax nag ngir ak fen ne haada lii ngeen gis ñu bind ko ba pare ha min andillaahi mooy téere ba ba xoo yàlla dara taxut nag ñi def lii lu may li yestaru ngir dañu jëndee bihi ca sama samanan njëkk te mooy àdduna xalila ba da aji néew te mooy alalu àdduna dégg nga alalu àdduna dong moo leen yóbbee lii waaye yàlla nag ne wa waylun tatug mbugal te mooy toskareeg mbugal lahum ñeel na leen mimmaa ci la nga xam ne katabat bind na ko ay diim seen loxo ya la lañ soppi bind ko ci lañ soppi ca tawreet ci ay baat ak ci ay maanaa bindal ko seen bopp ci seen loxo ya am nañ ca toskareeg mbugal mu tara tar wa waylun ak leen bi maa yegg si bu ci la ñuy fàgg te mooy lañ leen cey joxe comme alal ci wàllu nger lépp luñ ca am rek moo xam ci commerce ba la moo xam ca nger gala lu mu ca mën doon yàlla nee na tas ko yëpp mbugal lay doon ci ñoom aaye bii nag di ñëw mi ngi wàcc ci ñoom yahuud nii ndax dañ doon woote ne ñoom ñooy ahbaabullaay ci kaw suuf lu mën a xew ak lu mën a xew rek safara wax duñ fa dem loo mën a tëkkoo loo mën a wax loo mën a waar looleen leen mën a mën a jàjj si seen jëf yi ak seen melo yi ak seen bon nga tuddal leen safara ñu nax ay kooku safara moom bu dee ñun rek kenn du ci dugg safara moom duñ dugg safara ñun ndax suñu maam yeeg suñu bàyyi ay yénant lañ ñoom ñoo ñuy ràmm kon nag lii dañ ciy jàngee que ne bokk fu baax am maam ju baax mbaa baay ju baax warta tax nga naagoon def lu la neex naan bu ëllëgee suñu maam mooy ñu nàngam déet déet yaag sa maam bokk leen bàmmeel de loolu wóorul waxi waxi ku réer dong la mooy fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata yahud ya nag dañ doon wax ne ñun safara duñ fa dugg mukk wala bu fekkee dugg ga mënta ñàkk yi tamit ay fan yu néew lañ fay xam fan yooya nag ñu ko le ñu ko limoon ci juróom-ñaari fan ñu ne juróom-ñaari fan lañ fay am ndax juróom-ñaari fan yooya mooy juróom-ñaari fan ya suñu maam ya jaamu woon yëkkug saamiri yi wa loolu lañuy yàlla juróom-ñaari fan yooyu la ñuy passé safara mu jeex ñu dem àjjana jeex na ko te juróom fan bëriwut <laughs> lii di wax ñenn ñu ne déedéet fan yi mooy àdduna àdduna juróom-ñaari at la ñoom loolu lañu wax àdduna juróom-ñaari junney at lay duré juróom-ñaari junney at yooyu nag junney at yu nekk benn fan lañ ci benn fan la leen ci yàlla di mbugal su ko defee ñaari juróom-ñaari junne euh, benn benn ba muy juróom-ñaar juróom-ñaari fan lay doon lii lañ wax nag bañ waxee lii nag wax ko seen wax ko seen toppee tamit ummi yu ne yooyee nga xam ne xamuñ mënuñoo bind mënuñoo liir dara ci tawreet ba xamal ko seen bopp ñooñu gëm ko na topp leen ci loola yàlla nag yàlla danga wàcc aaya bii ngir delloo seen wax ya ne waqaalu wax nañ ñoom yahud seen boromi xam-xam ya ne lan tamassana laal tiñu lan tamassana lakk tiñu annaara safara safara duñu lakk mukk mukk duñ dugg safara mukk mukk illaa ayyaaman ndaree nag ay fan maadudatin ya yuñ lim ndaree ay fan yu néew yuñ lim lu mel ni juróom-ñaari fan yooyu ma la waxoon nga xam ne ña ngi ko tënk ca juróom-ñaari fan ya seen maam ya jaamu woon yëkkuk saamiri yi woowa ca yu Muusaa jooja pa loolu paase woon na ñenn ñu ne déedéet juróom-ñaari junney at yi ci àdduna nga xam ne at bu nekk ba ajut junney at yu nekk benn fan lañ leen cay mbugal juróom ñaari yooyu nag mooy juróom-ñaari fan mooy ay yaama maaduda lu ci am mënte am rek fan yu néew la waaye nag su boobu ñoom lii lañ wax ñoom yahud ñi waaye yëpp ay kàcc la mooy illaa amaani jiñ passé woon sànq illaa amaani ay wax la yoo xam ne seen mébéti bopp la teg wut fen ba mel ni ay fen la te sax ay fen piir la qul waxal yow muhammad nag ngir yedd leen ak ngir ngir yedd leen na attaxastum ndax da ngeen a jàpp yéen indallahi fa yàlla ahadan ak kóllëre ku leen ndax lii da ngeen koo dalante yàlla yàlla leen ko wax na leen a safara moom bu ay fan rek ngeen fay passé jeex na sept jours ah bu fekkee yàllaa leen dëxal lii xam leen ne falan yuxlifa dëxal du wuute du wuute mukk laahu yàlla aadu ak dëxalam bu fekkee yàllaa leen ko dë yàllaa leen ko dëxal yàlla du wuute ak dëxalam am wala boog taquluna da ngeen di wax rek alallaahi waral yàlla taquluna maanaam da ngeen di fen la bëgg wax am wala nga firee ne am wala boog taquluna da ngeen di wax waxi fenn alallaahi waral yàlla maa loo xam ne taalamu na xamu leen ca dara yéex wax gi ngeen wax nag ne du ngeen dugg safara wala bu ngeen fa duggee tam ay fan rek semaine ngeen fay am juróom-ñaari fan yow Muhammad waxal ak ñoom ne leen ndax loola yàllaa leen ko dëxal ndax yàllaa leen ko wax ndax dël ndax ndax ndax ndax yàllaay kii leen ko dëxal wax leen ko te kon bu aw dégg nga te kon bu fekkee ne loolu la yàlla du wuuteeg dëxalam te kon safara da fa am juróom-ñaari fan am walla boog yàlla dëxalu leen ko dangeen di fen waral yàlla te kon su boobaa daje dajale ngeen ñaari bàkkaar yu garaaw première dajale ngeen ñaari bàkkaar yu garaaw a garaaw première mooy euh, bàkkaarab soppi kàddug yàlla ak bàkkaarab fen waral yàlla ndax yu lan tama sana naa yooyu amaadaatin bokk na ci lañ soppi bind ko ci tawret te yàlla waxu ko muy benn kon boole ngeen ñaari bàkkaar te yàlla waxoon na ne amut fa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba wax ji nag moo indi alif kii hamza jooja ci attaxastum alif jooja taw biix moo ko tax a jóg moo tax nag ngir yedd leen ak xas ak yedd leen taw biix la moo tax xul waxal yow muhammad ne attaxastum andax yéen da ngeen a jàpp indallaahi fa yàlla ahadan ak kóllëre yéen ñiy wax ne lan tamassana naaru duñ dugg safara illaa ayam ma dundare ay fan tamay juróom-ñaari fan ndax loola lu ngeen dalante ak yàlla la ah bu fekkee yàlla leen ko dëxal wala ngeen dalante koog moom xam leen ne falan yuxlifa du wuute mukk laahu yàlla ahadu ak dëxalam yàlla du wuuteeg lim yàlla du wuuteeg inna laa laa yuxliful mii'aad jàngoon nga ko mooy fa lan yuxlifa llaahu ahdahu yàlla du wuuteeg dëxalam te kon safara da ngeen fa dugg de am wala boog dëxalan teewu leen ko ak yàlla taquluuna da ngeen di wax ay wax rek yu alallaahi waral yàlla taquluuna da ngeen di fen alallaahi waral yàlla maa loo xam laa ta'lamuuna xamu leen ca dara dara dara te kon su boobaa da ngeen toggoo ñaari bakkaar bakkaarab soppi kaddu yàlla ak bakkaarab fen waral yàlla yàlla ngi tontu nag ña nga xam ne dañuy wax ne lan tamassana naaru illa ayaaman maadudatin yàlla ne balaa aha kay safara da ngeen fa dugg te da fay biil balaa ji loolu lay tekki balaa baat bu garaaw la mooy balee léegi day firu tontu balaa wala balee bëgguma sori waxtu waa ñuy jot dégg nga lu konoon waaye dañ ko leb ba suba naa gën a leeral balaa mooy lan waaye daal balaa baat bu garaaw la li muy firi mooy balaa aha kay safara dangeen ngeen fa dugg te da ngeen fay biil li muy saxal mooy xam nga dañoo dàqoon booleeg saxal balaa danga day indi lañ dàqoon booleeg saxal saxal saxal saxal li muy saxal boppam su ko defee mooy rek xam nga lu ñu waxoon mooy lan tamassana naaru balaa aha kay safara kon dana leen naan tamassukumu naar dañoo waxoon illa ayama maadudan fan yu néew la balaa dàqulul tamit ne dangeen fay biil loolu yëpp moo tax ma firee noonu balaa aha kay safara dana leen lakk da ngeen fay béel te kon li ngeen wax na lan tamasana naaru ay kàcc la illa ay mawdatin ay fàcc la dugg ngeen safara te béel ngeen fa léegi nag balaa jim loolu tontu nag tañ xasafee ko fi te balaa ñëw présenté loolu yëpp moo tax loolu lay mel ni kuy lay nag ne man kasaba sayyi'atan wa ahaatat bi xati'atuhu fa ulaa'ika ashaabu naar hum fiihaa xaaliduun te yéen ci lii ngeen ne kon koy balaa <laughs> alquran lu yéeme la balaa ahanaam dangeen ngeen tàbb safara te dangeen ngeen fay béel yéen ñi ne lan tamassana naaru illaa ayyaama maadudatin léegi nag balaa jooju loolu noonu ma firee nag luñ fi waroon indi la loolu nag balaa dañ koy xasaf balaa ñu présenté ko léegi nag boo ko waxee ba pare nag da ngay indi lay ya dëggal la la la lay ya dëggal balaa jooja lañ xasafee ci balaa te mooy ne man képp koo xam ne kasaba fàggu na mu mel ni ba nga ne balaa aha kay da ngeen dugg safara te da ngeen fay béel yéen yahuud yi mu dàqalante masala nag ak ilaa ayaamin ma'duudatan mu mel ni aji laaj daf ne waaw lan mooy sa firnde ci loolu yow nga indi sa firnde ne balaa na ne man képp koo xam ne kasaba fàggu na ci ay jëfam sa yi ay ñaaw téef lu bon ak bàkkaar mooy yàlla rek ci la ne ci ay wax ak ay jëfam wa ahaatat ba far peeg bi ci moom xatiaatuhu ay bàkkaaram nga xam ne bàkkaar rek moo ko wër ndeyjoor ak mooy kanam ak gannaaw ñëw na àllaaxira andihu dara dara dara ci lu baax rek jëfam yépp lu bon moo ca ne mooy yàlla ki bàkkaar doo nga ci ne yàlla ne képp koo xam ne ci lii nga ne fa ulaayka ñooñu la gaay asxaabu naar ñooy waa ba ñooy boromi safara ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy ñuy dugg safara ba mel ni ba mel ni ñooy borom safara ñoo ko moom te ñoo te hum ñoom xaaliduna way béel lañu way dëkk lañu dëkk ak faw fiihaa ci safara te yéen ñii di wax na lan tamasana naaru illa de maadudatan ci lii ngeen ne fàggu bon def lu bon def lu ñaaw te seen jëf yëpp amul jenn jëf ju ci rafet seen teel jëf yëpp lu bon rek moo ci ne te yàlla wax na na képp ku mel nii te nga dem safara te yaa fay dëkk yaa fay biil kon koy balaa gis nga balaa ji la man kasa ba sa yaatu waxat bi xatir daanaka balaa ji lay layal gis nga ni mu noon la yàlla ne balaa ahanaam dangeen ngeen tag bi safara te da ngeen fay béyal mu indi mel ni da mu mel ni da ngay lay loola ne ndax man képp koo xam ne kasa ba fàggu na sa yi atan ñaaw téef wa axaatat te peeg te mooy wër ko gauche ak droite ndeyjoor ak càmmooñ wa axaatat te pep bi ci moom aji jëf ja xati atuhu ay bàkkaaram ay ñaawteefam fa ulaayka ñoo ñu la gaay ne ca loola mel noona asxaabu nari ñooy boromi safara te hum ñoom xaaliduna way béel lañu way dëkk lañu dëkk ak faw fi ci safara te yéen ci lii ngeen ne kon boo ngeen ne lan tamassana naaru illaa ayyaman ma'dudatan loolu ay kàcc kese la dara wéeru ca dara nooru ca waxoon na la alquran nag dégg tudd na safara nekku ne ne képp ku indi ala ki ñëw alaxira wala képp ku nekk ci fàggul bon di ko def di wala di ko wax ba say jëf lépp doon ay bon ke bon boni kese na nga xam ne borom sa dégg nga safara ngay dem te da fay biil da nga fay dëkk dëkk fa aljana du la xeeñ doo gis aljana aljana du la gis kanaa jullit ñi tiit nañ yàlla nag ne wala yi am na ñoo xam ne nag bu may wax lii ñoom taxuñ ñoom taxuñ may wax waxoon na la alquran fu mu tëkkoo ba nit ñi tiit rek ba jullit ñi tiit rek dana indi bégle topp ca tefal ca li tax dégg nga bu tëkkoo bañ tiit rek dana indi bégal bég dana indi bég dana indi bég xaw ma nu ñu ko waxee dana indi bég bégal jullit ña ngir seen xel dal lim na moon loola nag mooy dañoo bëgg ni jullit bi toujours muy nekk baynal xawfi wa rajaa yi te mooy toujours muy am yaakaar ci yàlla booleeg ragal yàlla mu boole ñaar yi ci xolam su ko defee ndax mu mën a équilibré wu ba du naagu te tamit ba du te te du ragal ragal boo xam ne ragal yi kese lay doon ndax naagu baaxul ndax olof yi ne ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la waxoon naa la ca gannaaw ne yàlla yonent bi wax na ci xadis ne képp koo xam ne xolam ba xaw fu ak rajaa u mànga ca kooku safara du yaramam du lakk safara du ko lakk mukk moo tax nag yàlla nga koy tofal di bégle gannaaw ba mu xuppee ne wallazina taggal ma gaañ nga xam ne amanu gëm nañu waa amilu te ñu jëfee asaalihaati yu yu baax jëf yu baax yi te mooy farata yeeg naafila yi ñi nga xam ne gëm nañu yàlla gëm lépp lu aju ci gëm yàlla wa amilu yemuñ ca gëm ga rek de wa amilu ñu ngay jëf nag la dëggal seen xol ya seen cër ya ma ngay def ma ngay nekk ci jëfandikoo lu dëggal seen ngëm ya ci ca xol ya wa amilu moo tax mu tekkee wa amil te ñuy jëfee a saalihaati farati ak naafila yi waxoon naa la fu mu tuddee limaan dana ca dana ca tofal amilu saalihaati ngir xam le ne limaan rek doyul foofu mu ànd ak jëf nag yàlla nag na ñi ne ci ñaar yii wulaayika ñooñu la gaay ñoom lay wax ne ashaabul janna si ñoom ñooy waaxal janna ñii ñooy boromi xal na te hum ñoom xaaliduuna way biil lañu way dëkk lañu dëkk ak faw faw fiha ca aljana jooju ñu tàbbi duñ fa génn mukk mukk mukk kon yàlla ñu yàlla boole ci wax aljanna yooya te dara du ko may lu may gëm yàlla ak jëf lu baax kon nañ góorgóorlu ci gëm yàlla dëggal ko booleeg wóolu ko tey jëf lu baax guddeeg bëccëg ci suñuy kàddu suñuy wax boole di ko jëflante ndax ñu mën a bokk ci wax aljanna yàlla ñu yàlla boole ci wax aljanna gannaaw suñuy bakkan ñun ñëpp góor ak jigéen nag ak ndaw ak maam yeeg bàyyi yeeg maam yeeg maam mataar yi ñoom ñëpp bu kenn génn ci ñun ak sët yeeg sa taaliba pencam yàlla ñu bokk ak mbooloo ñu ànd ci mbooloo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooy dugg aljanna bila xisaabin wala iqaab barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon liñ amoon ci waxtu fii la matee ñu tënk fii yem fii ba beneen yoon ba suba ak jàmm ci waxtu wi ci heure bi ñu sof fi ñu yemoon continuer lu ci leer ñu sante ko yàlla lu ci leerut suñu gàttu xam-xam la ñu ngi koy juum yeeg jaxase yi ñu ngi koy jéggalu ñëpp di ñaan ne xatama allahu lana bilxusna wa axallana min alxusna almaxalla al asna wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh